d'abord di nuyu euh, askanu Bambilor ak commune bambiloor yëpp di am satisfaction ak contentement ci club gym de Bambilor et de Rio donc euh, seen coach nekk Abdou vraiment depuis boobu ba léegi mu ngi ñëw di jàppale waa Bambilor yi. di jàppale xale yi pour fexe nu ñu amee wane seen talent ci wàllu gymnastique parce que boo xoolee sport yi dafa diversifié wu am na basket am na handball am na football am na aussi tamit gymnastique donc je pense que vraiment euh, dañuy am contentement rek parce que nit aussi tamit euh, lépp looy def rek waroo xaar ñu la ciy soññ donc ñoom gis nañ ne fii la ñuy entraîner fii am na nu mu mel ñu ne nañ participer seen participation nag mënuñu jël xaalis di ko joxe parce que ñun moom képp kuy jeune bëgg fi dara wala nga fiy def entraînement yooyu duñ la demander dara dañ lay bàyyi nga entraîner mais nag en revanche li ngay participer mooy yow en tant que jeune yaay xool xam ne lii je fais partie nga xool leen loo mën a defar nga defar ko tey ñoom noonu lañ def ànd ak seen équipe ñoom ñëpp ñëw nettoyer foyer bi vraiment tey ku fi duggaat xam ne foyer bi set na am na confort du lu sant leen gërëm leen rek di lancer un appel à tout la jeunesse de Bambilor di leen wax ne yii di am nii. ñeneen association yi nañuy ñëw di ko def parce que tamit kër gi seen kër la bu ñu xaar ne tey peut-être bureau bi rek ñoo war a def mais na ñëpp ñëw di participer bu ko defee nit ñi xam ne li ñu def ni amal na njariñ dëkk bi donc loolu la beneen bi aussi tamit di leen ñaax di kontaan ci li nga xamante ne moom moo fi am ndax tey Bambilor am na fi ay jeunes talents yoo xamante ne vraiment euh, bëgg nañ wane seen talent ba au niveau national kon moom bu jógee takk soxna Bambilor yàlla def mu dëkk Bambilor diggante Bambilor ak am idée wu créer lu tollu nii ànd ko ak ñun ñu ko ciy jàppale vraiment wax dëgg yàlla du ñu def lu dul am satisfaction am contentement di wax ne rek ñun pare nañ pour accompagner ko tey nag moom dañuy def euh, entraînement wu présélection bi di ko waajal samedi di lancer en appel à tout le monde di wax ne samedi incha allah bëgg nañ képp kuy jeune sportif nga ñëw xool suñuy doom suñuy jarbaat yi nga xamante ne ni moom entraîné na leen. ba ñu am benn talent bi ñu war a sélectionné présélectionné leen pour mën a xool nan la ñuy def ba sélectionné ba sélection bi ñoom ñu mën a bokk au niveau national espérons que loolu dina sorti parce que vraiment man gis naa xale yi talent bi nga xamante ne am nañu ko ak li nga xamante ne moom lay liggéey ak ñoom donc ñu ngi ñaan doomu Bambilor yëpp surtout la jeunesse samedi nañ ñëw encourager xale yi accompagner leen ba li nga xamante ne nii loolu la ñu war a def ñu gën ci am courage

ci li nga xamante ne mooy club national bi donc loolu la ñuy lancer en appel autorités yi moom li ñu leen di wax rek mooy nañ ñëw soutenir li nga xamante ne mooy club gym de Bambilor Rio nekk na club boo xamante ne nii ñoom bëgg nañ ko yaatal ba mu nekk dans la commune donc sport la comme sport yëpp et ñun aussi tamit suñu rôle en tant que foyer des jeunes dinañ fexe utal leen audience ak l'honorable député maire de Bambilor su ko defee ñu mën di leen subventionné di leen jàppale comme ni ñuy jàppale football ni ñuy jàppalee basket ni ñuy jàppalee làmb ñu jàppale ko club gym bi ak karaté parce que amu fi woon mais bu ñu demee ba créer ko li ñu war a njëkk def mooy dem toog waxtaan ak autorité yi xamal leen ne lii am na fi ñoom incha allah ñu ngi ci tànk yooyu dinañ ko ànd ak ñoom jàppale leen ba tey ñu mën a am lu nga xamante ne dinañ ci mën a ndëgër laawayoo pour mën a jàppale xale yi ndax tey xale yi soxla nañ ay dàll soxla nañ ay dàll soxla nañ tapi

Salam alaikum, di alaikum. Eh, waa zone 7 di leen nuyuwaat bu baax encore une fois am contentement bu baax si yéen tamit sa fekk ngeen avec ma fils, mon Gym le may liggéey si fils si Bambilor. Abdou Faye que eh, Rufisque doon entraîneur l'équipe nationale gymnastique du Sénégal en même temps donne entraîneur Rio Gym Aerobic Club en même temps donne entraîneur Bambilor Gym Club. ni préparation la mise en place bi moment entraîneur entraînement podium. mooy bu préparer seen qualification présélection yi war a am fii samedi le 24 fii si foyer des jeunes de Bambilor juste euh, les prochains championnats d'Afrique mu lañuy préparer parce que doo xaar ba mu jege nga bëgg a waajal dañuy dangay waajal dès maintenant liggéey ak xale yi si les catégories bu mën a xool ña ñoo xam ne mën a ñu apte pour mën a ànd ñoom liggéey ñoom pour mën a am ndam lu yaatu daal dina am groupe d'âge groupe d'âge mooy maanaam ñi am 8 ans b 11 ans dina am euh, pré junior mooy

mën naa ne ñoo gën a concerné pour ñu mën a bokk si équipe nationale bi mën a dem voyage ànd ak nationale bi. di ko di ko njëkkee si euh, monsieur le maire di nga si préfet di wax ñëpp ñoo xam ne képp bépp autorité bu nekk fii si Bambilor ñoo lay ñaan nga ñëw si bis bi même soo mënul ñëw nga yónnee teewe ak ña ngay àndal mën a teew si bis bi ak parents xale yi pour mën a may doole xale yi pour ñu mën a bokk si présélection bi pour mën a défendre seen couleur Euh, amana mën naa ne am na lu des am na lu des parce que fu dee nii soo xoolee tey fi lañ yendu doon nettoyer foyer bi man nag euh, gymnase ñu ko doon nettoyer di xaar na ñooy xaar ay sièges war nañ am ay sièges war nañ xaar euh, animation loolu yëpp mën na mën a nekk si bis bi pour mën bis bi mën a réussir à 100 pour cent mujj mooy maa ngi remercier parents yi tout d'abord ba pare parents yi parce que sans ñoom liggéey bi mënul am ñoom ñoo bàyyi seen doom am seen confiance ñu bàyyi mu liggéey si ñoom di remercier tamit sama fédération sénégalaise de gymnastique di ko njëkkee suñu présidente di remercier tamit ah ki nga xam mooy suñu président Macky Sall di remercier autorités yi nekk fii si Mbambilor di ñaan yàlla bis bi réussir kat ñu si borom bi. Ba Anta Mbaye contentement parce que parce que man kontaan si daaw li ma dem Égypte te ren ñaan yàlla bokkaat si sélection bi pour mën a dem parce que place bi ñun kese moomuñu ka place bi ñëpp la. bo xasee ba dem ba ñëw rek fi ñëpp nek équipe nationale fi fii lañuy bolé ci pré sélection ñun tamit moy ñi nga xamantene mom ñom ñoo nek ñeneen ci pré sélection bi ñom man maa leen di wax man maa leen di encouragé parce que ñun ñu demoon fofu ñun xam nañ li fa am xam nañ ni mu mel tamit té fofu yombul ñu continuer entraînement yi rek wa ñoy ñaan yalla bu baax dem dem si ak jàmm ñu wax jàmm ñu continuer ni ñuy def rek am respect ci entraîneur bi déglu ko li muy wax parce que foofu boo demee entraîneur rek nga am amoo fa kenn bu fekkee ñoom continuer nañ noonu ah ñu continuer tamit travail bu baax ndax ndax bu ñu ndax exigence yi boo ko mënul dem fenn.

parce que gymnastique dama daan toog di ko setaan te dama mos a dama mos a bëgg kon boog. ñaan nit ñi nekk si jàmm di remercier sama papa ak sama yaay ma bàyyi ma def gymnastique.